waaye su sëriñ la ci ñu it muy Cheikh Béthio ma duggee ci biir jumaa ji eh, nekkandoo fa ak sunu sang si suñ jiili suñ Murtala mm, ñu ndogo ndogoo fa sama xol yëgaat na leneen tey mooy eh, gën a jàppaat rek xam ni eh, yoon waa ngi nii ci lañuy ñuy ne guddi ci lañuy ñuy ne bëccëg Euh, sant di sant am ak cant gu rëy rëy ci sëriñ bi waaw ko sant mbooloo mi àndal yëpp euh, bis bi euh, dañu ne dañ ma koo jagleel waaye fii jàpp naa ne bis yëpp rek sama bis la war a nekk ba tax na xam naa fii ak déwén bu soobee jàpp naa ne dinañ ci doxe beneen pas-pas waaw waaw diine hmm. ah, ah, ah, sant ak cant gu rëy ci Serigne Touba moom Serigne Saliou euh, feggoo bi ma fegg ak ñoom rek muy sëñ Mourtala ak sëñ euh, Jili euh, dundalaat na ma dundalaat na sama xol ci sëriñ bi yeesalaat sama pas-pas li yëpp rek moom daal nanga xam ni yendu nañ tey kendal loo xam ne gëj nañ gëj nañ koo gëj nañ koo gëj nañ koo am waaw sant nañ bu baax a baax liggéey sëñ Mourtalla ci barab ah, liggéey bu rafet loolu dañ koy rafetlu euh, Serigne Cheikh moo ko moo ko moo ko moo ko ko dénk te Serigne Cheikh moom ñëpp xam nañ ko ci ci ci diine ni mu taxawoo lislaam bi euh, te sëñ Mourtalla sëñ Mourtalla mooy moom rek seen taxawaay benn la